taxawal diinaam. te taxawal diinaam. ak ñi koy taxawal. ak ñi koy taxawal. yàlla mi yóbbu xatam daaw mi. yàlla mi yóbbu xatam daaw. indi xatam ren mi. indi xatam ren mi. ak li leen di jaaxal yëpp. ak li leen xatam ren mi di jaaxal lépp. yàlla na ko def muy xat ma gën ci xat yi. yàlla na ko yàlla def. muy xat mi gën ci mboolem xat. yàlla yàlla soppe suñ mboolee mi mbit yaara bi. jëmee ko ca mbir ma gën a rafet. jëmee ko ca mbir ma gën a rafet yaa rabbi. yal nañu yàlla dàqal lépp lu bon. yal nañu yàlla dàqal lépp lu bon yaa rabbi. yal nañu yàlla indil lépp lu baax. yal nañu yàlla indil lépp lu baax yaa rabbi. alquran yàlla ku ko wasal. barke alquran yàlla. barke alquran yàlla. ku ko wasal ak ki ñu ko wasal ci moom. ki ko wasal ak ki ñu ko wasal ci moom. ak li tax ñu wasal ko. ak li tax ñu wasal ko ci moom. barke diine l'islam. barke diine l'islam. yal na yàlla xalak bani israila yal na yàlla xalak bani israila yaa rabbi yal na yàlla xalak bani israila yal na yàlla xalak bani israila yaa rabbi ba lislaam dooree ba ci bésab tey bii ba lislaam dooree ba ci bésab tey bii yàq wu mas a jëm ci lislaam rek ci yéefar la jëme yàq wu mas a jëm ci diine lislaam ci yéefar la baxe ko ba léegi. al ba léegi. ñoo fi nekk di jéem a yàq lislaam. ñoo fi nekk di jéem a yàq diine lislaam. alquran wax nañu ne. alquran wax na ñu ne noon bi gën a tat noon bi gën a tat ci ñi gëm yàlla ci ñi gëm yàlla moo di yahut mooy yahut yahut yahut ñoo rey yahya ñoo rey yahya yahut yahut ñu doon jéem a rey isa ñu doon jéem a rey isa wax nañ sax ne rey nañ ko wax nañ sax ñoom ne rey nañ ko yahut yahut ñoo posone yonente bi ba mu génn àddina. ñoo posone yonente bi ba mu génn àddina. yahud. yahud. ñoo fay ki rey Sidina Omar ibnu Xattaab. ñoo fay ki rey Sidina Omar ibnu Xattaab. nga xam ne bu dundoonati fukki at rek lislaam daj àddina. nga xam ne bu dundoonati fukki at rek lislaam daj àddina kat. yahud. yahud. ñoo xebal ci sos xawaarij. ñoo. xebal ci sos xawaarij. ñoo xebal ci sos xawaarij. day yàq xare Sidina Ali ibn Abi Talib. day yàq xare Sidina Ali ibn Abi Talib ba. yahud. yahud. ñoo yebal ki sos Chian. ñoo yebal ki sos Chian. Chian ñi nga xam ne. Chian ñi nga xam ne. dañoo def Ali muy yàlla. dañoo def Ali muy yàlla. ak i doomam. ak i doomam. noonu Babacar ak Omar. noonu Babacar ak Omar. pas-pas boobu ci diine lislaam yahut a ko sos. pas-pas boobu ci diine lislaam yahut a ko sos. ba fi léegi. ba léegi. lépp lu lu ñi tawat. lépp lu julli ñi tawat. yow da ko sos. yow da ko sos. riba ñoo koy indi ci àddina. riba ñoo koy indi ci àddina. banque yi def intérêt yow da ko sos ci àddina. banque yi def intérêt yow da ko sos ci àddina. communisme. communisme. li gën a nekk noonu lislaam li gën a nekk noonu lislaam yahud yi ñoo ko sos ci àddina. yahud yi ñoo def jullit yi li leen naqari ci li ngeen déggoon ci wetu weeru koor yi. yahud yi ñoo def jullit ñi li leen naqari ci li ngeen déggoon ci jamonoy koor gi. yetti jàkka yi nga xam ne moo gën a màgg ci lislaam. yetti jàkka yi nga xam ne ñoo gën a màgg ci lislaam. benn ba moom. benn ba moom. jàpp nañ ko. jàpp nañ ko. kenn dootu fa nodd. kenn dootu fa nodd. kenn dootu fa julli. kenn Sen bëgg-bëgg amul foofu. seen bëgg-bëgg ba kenn xamul foofa. jàkka yonent ba la ñuy xase. jàkka yonent bi la ñuy xase. buñ sañoon jot Medina. buñ sañoon jot Medina. bay julli ñi dootuñu am fu ñu jaar siyaara ji yonent bi. bay julli ñi dootuñu am fu ñu jaar siyaara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñooñu ñooy nee na noona képp kuy julli. ñooñu ñooy noona képp kuy julli. ku leen xamut war nga leen xam. ku leen xamut war nga leen xam. alquran xamal nañu ko. alquran moom xamal nañu ko. seen taarix ci àddina it xamal nañu leen. seen taarix ci àddina it nañu ko. kon na kon Alfayda FM bu leen tubaab yi yar. bu leen tubaab yi yar. rafetal ñooñu fi yéen. rafetal ñooñu fi yéen. ba ngeen defee ay nit lañu. ba ngeen defee ne ay nit lañu. xisay bani Israaïla bëri na ci alxuraan la. xisay bani Israaïla lu bëri ci alxuraan la. yàlla jubluwu ca lu may xamal ñu ne ñoo yàq yu gën a màgg ci àddina. yàlla jubluwu ca dara lu may xamal ñu mooy yàq wi gën a màgg ci àddina. yal na leen yàlla xalak. yal na leen yàlla xalak yaa rabbi. te xalak képp ku leen di dimbale. te xalak képp ku leen di dimbale. yal na leen booleeg Amérique. yal na leen yàlla booleeg Amérique. yal na leen yàlla booleeg Amérique. mi leen di dimbale. mi leen di dimbale. def leen ci gën ca suufee waaye suufee. def leen nekk ca gën daa suufee suufee. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan